salaamaaleykum yow mi si fur sunu sécurité jëleen ak jàmm si vidéo bu bees bi euh, démb gisoon naan lu jëm si file system dañuy def benn pratique bu ndaw rek comme si euh, access control list bi ni may demee comme genre permission yi boo xoolee am na lu ëpp benn utilisateur fii comme am nañ si sunu sécurité bi may connecté ak yeneen utilisateur yi te waxoon nañ ne boo ñëwee exemple exemple ci disque local C bi dem utilisateur dangay gis ne connecté ma ci exemple fii te mën naa faa dugg léegi bu doon ngaa yor benn moo xam dossier la benn fichier la def si yenn permission yoo xamante ne kenn du ko mën a liir wala lire rek lañ ci mën comme niñ ko gisee woon démb nañ ko koy defee dañuy créer fii benn dossier si suñu sécurité tuddee ko exemple bi nom de bi ñu bind si secret bi pour lépp pratique rek read only créé fi benn ss suñu sécurité naa copier même fiche bi yóbbu ko secret ak non advance non advance bi ma si jublu bu dee benn bu dee kii bi leen bëgg a def permission exemple defal clic droit ci kawam dem si suuf propriété dina la indil tableau bi dina gis onglet bi ñu bind sécurité nga dem fa boo fa demee danga am am nga fi ñaari option mooy comme ni mu la indilee noo utilisateur yi fii wala nga utiliser avancé bu dee noo utilisateur bi exemple bu doon bëgg nañ comme geek bu connecté ci kii bi ci machine bi bëgguñu mu am accès fii nii mën ngaa ñëw si geek automatique dem modifier da nga gis ne euh, am nga système bul ko laal sa basa ngi nii bul ko laal administrateur comme gig bi nga mën a sensé mën ngaa def si suuf nii autorisé da nga gis ne yëpp dañ koo kose xoolal ban nga bañ mu jot ci dañ ko ko bëgg tere bëgguma mu contrôle total yëpp mën nga koo bës boo defee appliqué du mën a dugg si biir comme nañ utiliser noonu advance def appliqué mu ne fii wax naa la euh, autorisé bu dajeek refusé refusé bi lay jiital defal oui def ok def ok seen fichier yi ni dañuy def yëpp après ñu dugg fee benn yoon bu dee secret bi mooy euh, exemple defal clic droite dem propriété ñëwal sécurité nga dem avancé tey avancé la ñu jël boo jëlee avancé am na yii nii boo xoolee euh, dossier bi hérité de comme mu yore fan la koy doon access control yëpp boo xoolee yëpp contrôle total la bu la neexee mën ngaa def désactiver l'héritage pour yëpp dem mën ngaa def tamit ajouter pour boo bëggee ajouter automatique nan désactiver boo di ajouter comme bu ñu defee désactiver supprimer lépp def ajouter defal sélectionner un principal mën ngaa bind fi tur bi boo ko xamee automatique def vérifier les noms wala nga ñëw avancer boo demee avancer nga dem rechercher pour mu indi le nom utilisateur yëpp boo xoolee li nga fi gis géeg boo ko gisee nga bés ñaar yoon gis nga lim la indi nii même bu supprimer woon nga def ñu utilisateur bi automatique def vérifier leen ñoo yem après nga def ok fii dalay laaj type bi lan nga soxla day autoriser wala day refuser yaa xool comme li nga bëgg mu dem fa comme exemple euh, ñu def euh, autoriser lan lay autoriser dossier bii rek mu nekk dossier seulement wala dossier bi ak sous dossier yi nekk si biir ak fichier yi wala dossier bi ak sous dossier rek yaa xool yi yëpp wala fichier seulement ban nga bëgg a choisir ñun bii lañ choisir nga xool loo ko bëgg jox fii nii ndax dangay autorisé comme exemple secret la nañ ko def lii rek exemple bu dee non adimance bi dindi lépp ñu ko def lire rek pour nga comprendre lire xam ne lire rek day mën a def mën a def modifier wala su ko ubbee tamit du si mën a def benn modification mën ngaa def appliquer euh, comme yi mu def nii yëpp yeneen yi mu fay fekk ci biir ci biir dossier ba ay fichiers yooyu noonu mu def mu jox ko même euh, règle yi nga xam ne moom nga fi appliquer defal ok nga gis fii accès lecture rek la am rt s'appliquer à defal appliquer def ok fii boo xoolee lecture rek lañ am kon réglé nañ ñaari bi read only nañ changé tur bu dee propriété sécurité ñu dem exemple fii modifier dem geek bu dee ne utilisateur bi nekkul mën ngaa dem avancé recherche ko fii mën ngaa jël di def lecture et exécuter mu mën a wala écrit lecture et écriture nga def lecture ak écriture na mën ñaar yëpp mën ñoo jëlaale lecture exécutation bu jeex appliquer oui ok euh, ñu changer tour bi waaye te boobu kon lan lañ jublu si permission nan nga xoole nan dem ci utilisateur bi comme guide ma leen ko appliqué boo demee recherche am na fu mu def euh, bu dee anglais bi everyone bu dee neexee nga nga siir ko pour nos utilisateurs yëpp waaw ñu dugg si guide bi nga xool diggante moom si C bi bu dee bi li mu jëriñ na jooy mën ngaa xool vidéo euh, bi ñu defoon démb ñu dem ci exemple euh, fan lañ jëm sax hmm, géej laa nekk di dem sunu sécurité dem bureau da ngay gis ne li ma créer woon dossier yaa ngi ne writable sécurité euh, secret ak pro wala ah, non advance bokk non advance waxoon nañ kenn géeg bu mu ci mën a dugg buñ bësee ñaari yoon automatique danaan la dossier bi amu ci accès bu ma defoon continuer nii du jàll wala da laaj mot de passe non kii administrateur bi nga xamante ne moo lay may nga mën a changer affaire yi dossier bi yow il faut nga moom ko war nga nekk administrateur pour nga man see def yenn modification yi mu defee no jàll fi toll nii su ma ñëwee secret lii rek laa man bu ma ubbi secret dem ss ma modifié woon nii bu ma defee fii see def enregistré gis nga bu ma defee enregistré wii du danaa la accès si euh, du nangoo yàlla ndax riir rek lañ jël fi mu toll nii ko dossier bi mënuma koo mën naa koo modifier enregistré ko sama bas xëy na mais ci même kii bii nii même dossier bi moom mënoo cee def modification bi di ko enregistré muy gàll nga gis kon ni mu amee solo boo amoon benn fichier boo xam ne bëggul kenn liir ko wala benn document ñu dem si bu mujj bi buñ ñu joxoon writable mooy benn permission lañ ko jox ñu te wute jàll xaw ma permission benn laa ko jox gars yi boo ñëwee sécurité mën ngaa gis permission yi hmm. administrateur bi rek moo mën a gis euh, permission bi bu dee xam naa mot de passe bi mën naa dugal mot de passe bi boo ñëwee géeg hmm. ñu naan def modifier ah modification ok ok way to gain folder hmm. modificação aqui donc contrôle total mu mën a modifier def lecture def écriture ak yëpp mu xool appliquer ok appliquer ok dëpp desktop waaye Mm. Degan ga bople. Security continue. Uh, ban lagi, ban lagi. boo xoolee fii ci kaw si <laughs> kaw ban lañ tànn type bi refusé lañ tànn defal autorisé kon autorisé kon yëpp nekk autorisé ñu dem xooliwaat jàll na autorisation boobu noonu lañ jaale woon def ko refusé moo tax mu bañ dana jàll su ma bindoon dara def fii fiise def enregistré fi mu toll nii jàll na nga gis ne access control list lu am solo la mën nga koo jëfandikoo jëriñu si bu baax kon euh, lii moo nekkoon euh, vidéo bi di sàkku si yow nga abonné suñu seen youtube bi partage vidéo yi plus fàtte def commentaire joxe sa xalaat ñu ngi koy xaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu